Abdoulaye Wade citoyen sénégalais la d'État comme président Abdou kon jàpp naa ginnaaw bi mu demee ba def ñaari mandat te kenn gêné wu ko premier mandat def na ko kenn gêné wu ko sept ans amul woon sax opposition mu def deuxième mandat forcé bëgg a def troisième mandat sénégalais yi jóg lank mu dem dàq Macky Sall dàq ma dàq Mbaye Ndiaye muy dévolution monarchique ndax Karim Wade Karim nekk ci ndaataat lax lu ko neex ba yoon teg ko loxo problème am ñu téye ko Macky Sall ci laa biiram xam ne Ablaye Wade mooy seen baay xam ne Karim ak moom lépp ñoo ko bokk mu dugal yërmande bàyyi ko waaye mënoo ñu teg la tuuma bu tol noonu. ñu jéggal la nga ni sama doom dana nekk candidat par force mënul ne am réew ay loi ak i règlement ñoo koy doxal Ablaye wàdd amul benn yoon droit amul benn yoon sañ-sañ jàpp Sénégalais yi en otage jàpp leen comme ay jàmm bu ñëwee rek juróom-ñeent fukki at ak ñeent nga ni naa jaxase réew mi li la réew mi defaloon lépp nga fàtte ko Ablaye Wade yorul woon dara Ablaye Wade 2000 oto bu ñuy puus la yoroon ak genn kër looloo am bunt kër sëñ Modou Aminta taxaw na fa di dem Tamba dañoo puus oto bi ab Ablaye Wade daw na réew mi ay at ñemewu fee jaar dans soxo ñoom ak bàcc li ñooñu tooñ ñoom ñi ko jëli ndax noppalu woon na ndax yoratul woon ñaari dërëm. kon bu toogee bëgg a taal réew mi ndax doomam du sotti sénégalais yi majorité bi ak kilifa yu baax yëpp Macky Sall lañ àndal mënuñoo xoq talent élection dina am te dañuy gañe loolu moo wóor kon loolu lay wax ñi ngi ci terrain bi bu dee mën naa te élection dem mais dana dégg moom mi am juróom-ñeent fukki at ak ñeent jeexal takk moo mën a taxaw ni moom dana taal réew mi danañ mën a taxaw ñun ñi ko gën di gone man 64 ans la am ni ko doo taal réew mi mbaa bu defante jotee ñu defante koog moom loolu rek ay wax bi wasalaam.